ya nekk fa moom te duñu xaaj duñu jeex waaye doomu aadama lottu na gattañlu na ngir mu war a mën a lim xéewal yooye walla mu di ko peek ba tax na buur yàlla ne ñu ci maanaa aaya alquran wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha bu dee da fi nekk di géema lim di géema xayma di gima natt xéewal ya yàlla xéewalal ja jaami wala doomu aadama yi du ngeen ko matal te dungeen ngeen ko peeg ba tax na ñuy fàttalanteeg mbokk yi rek xéewal yañu yàlla defal saa su ne moment wi waxtu su ne waxtu su néew ci ginnaaw ñu doon joxe julli bi nga xamante ne noddukat bi mu ngi ñu daan wax ci biir julli bi ne xayya ala salaax kaay ci julli xayya ala falaax kaay ci texe julli ba leen di jokkale seen digganteeg seen boroom julli bi nga xamante ne fa ngeen di amee texey àddina ak texey ëllëg keroog bés ndax sallallahu alayhi wa sallam na ci lim ñu wax ci importance julli mu ne ñu awwalu maa yuxaasabu bihi al abdu yowma alqiyaama lu jiitu lu jëkk lañuy àtte doomu aadama keroog bés pénc muy julli mbokk yi bu ñu fi taxawee tuuti dinañu gis ne lu njëkk lañuy àtte doomu aadama keroog bés pénc ñu ne muy julli du ñàkk ku ne deet yàlla xol bu laab la bëgg naam yàlla xol bu rafet la bëgg am ku naan déet yàlla lu ci xol bi lay xool naam yàlla lu ci xol bi lay xool am ku naan déet na nga yéene nit ñi lu baax na nga jëflanteeg nit ñi lu baax naam yàlla digle loolu santaane la loolu am ku naan déet du ñàkk aji màkk daal loolu man lu ma farataal la naam lu baax la ci ponko islami la bokk du ñàkk am ku naan déet man azakkay alal ba ma yore dama koy génne naam lu baax la la yàlla santaane la kenn ku nekk ngay xelaat na ngay jaamoo yàlla mu doon raccourci bu gaaw waaye julli moom comme ñépp koy def ki am ki amul ki xam ki xamul pauvre beeg faqir beeg ñépp ay def julli ñëppay julli ñëppay défendre même action bu dee seytaane gañe na sa mémoire bem la diisal julli jooju xamal ne julli woowu la ñuy xool ci say jëf yi keroog doy na rek ci misaal ñu ne diw sangam de dafa nara tukki wara a jaaree ay rapport moo ne am na passeport passeport bi am na visa moo ne waa ji am na bi moo ne am na argent de poche sol na saagam jël na otoom oto bi départ na fu muy jëmale ilal matar ilal matar mu ngi dem ci aéroport bi ngir jël vol ba koy yóbbu bitim réew waaye waa ji bu mu àggee ci ram bi mu dem ci gisee bi policier yay saytu document tukki ñu ne ko ana sa passeport moo ni billet baa ngi ci saak bi argent dépense baa ngi disponible adresse baa ngi disponible tout ok colin bi correct na saak bi kilo buñ ko wax lépp remplir na condition yooyu waaye passeport bi nekku fa mbokk yi ana kan moo war a mën a defar waajooju intervention pour mu dugg ci avion bi xel xelaatu ko du directeur du chef équipe ba équipé keroog ña war a tukki du force de l'ordre ya fa nekk amul benn connaissance ba muy fëgg buntam ne ko fàtte naa sama passeport maa ngi nii ci aéroport bi mais dañ ne duma dem ndax andiwuma passeport intervantion yañ ko fay jëlal lenn dong la te nga annulé sa vol bi jël sa passeport keroog képp ku ko nar a wax dëgg te nga buggal ko yiw te bugguloo mu keree fa dara danga ko naan sëñ bi lala gaay wax ngay def yoral xaalis bala waaw ba disponible yoral xaalis ba nga yore mais bu dee ñu jub lañu duñu nangoo laal ca alal jooju ndax bu ñu laalee sa xaalis jooju bi nga dugg ci avion fa ngay dem nga wàcc fa ñooñu buñ la ne ana sa passeport présenté wuloo passeport dañ la naan nanga duggee ci avion bi su ko defee coow li danaan kur aw kañ kon ndegem suñu tukki yañuy tukki fii suñu dund àddina yore lépp bii bi baax na montant boo ko jëndee validé nañ ko passeport bi visa ba fa nekk validé nañ passeport bi valable na waaye jamono bi nga doon dem aéroport nekkut ak yow présenté li la neex melal li la neex waxal li la neex joxe li la neex waaye ndegem passeport bi nekkul ci ndaje ba béréb boobu yeppaate passeport soxna Mari amuloo accès doo am accès du kenn ku lay defar intervention ngir nga dugg ci biir avion keroog vol boobu danga koy rate ndegem lii mooy tëralinu doomu aadama ci doxalinu dundum ak keneen ñépp di ko moytu ñépp di ko bàyyi xel kenn bañu koo kenn bugg ko jëf kenn bugg ko jalgati waaw rawatina tërërin ba yàlla buur bi tabaaraka wa taala tërër ne yenent bi ne xamal naa la ne nanga nga wax ak sama jaami lu jiitu la njëkk première chose awwalu maa yu xaasabu la yenent wax lu jiitu lu njëkk lañuy ñuy doomu aadama fii nag doomu aadama góor ak jigéen mag ak ndaw tànku jullit nga bàyyil xel julli ba ñu ne la loolu mooy njëlbeen mbir ba ñuy régler say affaire joxel ñam boo ko booleeg di sàmm wanteeg waxtuy julli mooy li wóor dimbalil nit ñi sa kemtalay kàttan waaye boo ko booleeg ak sàmm wanteeg waxtuy julli mooy lu wóor te mooy lu wér fonkal sa ñaari wuy jur waaye nanga ko booleeg joxe waxtu yu juróom yi moy lu wér te mooy lu wóor waaye yi yuñ la limal nii ak li ni mel li nuroo ni lañ la wax ni lépp loo ci def bu dee waxtu julli juróom amuñu fa palaas haa daa mel nii rek nga dem aéroport fàtte sa passeport kër gi billet bi disponible na visa bi leer na disponible na njigu vie bi tamit validé nañ ko saak bi kilo bañ la wax euh, loolu nga respecté tout est bien waaye nag ana passeport bi passeport bi dafa wadd doo dem ana passeport bi passeport bi fàtte naa ko kër ga demal jëli ko andi ko wala doo dem te àllaaxira nag bu ñu gisee ne julli bi baaxul du ñu xool leneen waaw ndegeem bu dee demoo dem nga aéroport yóbbaalewuloo sa passeport bii bi amuñu si soxla visa bi waxi noppi argent de poche bi argent de bi nga yore moom it gaa yi amuñu si soxla comme julli bi baaxul azaka beeg birrul waalidayni beeg amir bil maaruf ak yu ni mel digle lu baax tere lu ñaaw yooyu kenn du ko xool ndax julli bi moo baaxul julli bi bu amee tuuti benke ñenke ba ko yàlla refusé dootuñu xool yeneen jëfi lii mooy lu wér kon julli woowu bu ñu ko yàlla yombale ba ñu joxe waxtu su njëkk bi nga xamante ne mooy suñu première audience ba ñu rencontré ak suñu borom di julli fajar kon yonent bi neena danga da sant yàlla gannaaw bi la yàlla delloo sa ruux ba nga am première audience ba nga remplir nga wax alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yi kawe ñaan nañu yàlla ndax buur la boo xamante ne moo ma delloo sama ruux te bu ma jóge ko ci dundu àdduna bi ci moom lay dellu jàlla waala mbokk yi digle njekk tere lu ñaaw importance bu mu am ci pénc bi moo tax xadiis yenentu bi ci saxaabi bu ñu naan xuzayfata bul yamaani radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal walladi nafsi biyadihi la taamurunna bilmaaruf wala tanxawna an ilmunkar aw la yushikanna allaha an yabcata alaykum iqaaban minhu thumma tad'uunahu falaa yustajaaba lakum xadiisun xasanun axrajahu albaani fi saxiixil tirmizi mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot saxaabi bu mag ku ñu naan xuzayfata bul yamaani radiyallahu anhuma yal na ko yàlla gërëm mook anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ne ñu walladi nafsi bi yadihi gëñ naa ci ki yore sama bakkan te moy yàlla yonent bi bokk na ci anam ya muy gëñ di waat lii bokk na si mu ne waat naa ci sama bu mu bakken ci mu nekk waat naa ci ki yore sama bu mu bakkan yenentu bi nee na waat naa de ci yàlla ma yore sama bakkan la ta'murunna bil ma'ruf di ngeen fi nekk di ndigle lépp luy jagal pénc bi wala tanhawna anil munkar ngeen nekk fi di tere lépp luy ñagasal pénc bi waaw yonent bi nee na wala aw la yushrikanna allaha wala yàlla sëmbaxtar leen yàlla wàcceel leen def leen ngeen doon xeer bi nga xamante ne dina leen yónnee ci seen kaw iqaaban minhu mbugal ak coono ak mettitu yaram difficulté bay bàyye koo fayal yàlla su ko defee ngeen jàllarbe ko di ko ñaan te du leen wuyu du leen nangul ndax da leen jéppi allahu akbar kon mbokk yi nañu xool xulaasa xadis bi taaliqaat yañu war a andi ci maana xadis bi yonent bi dafa waat ci ka yore bu mu bakkanam di yàlla di boromam subhaanahu wa taala sallallahu alayhi wa sallam nañu la taamurunna bil maaruf di ngeen nekk fi rekk di digle lu baax waaye waaye waaye nekk leen fi di digle lu baax nekk leen fi di digle luy ñaŋal luy jekkal luy ñoŋal luy rafetal pénc bi luy jëkkal seen nekkin bu dee wax la na ngeen ko wax ba seen nekkin bi mucc ayib yéen jullit ñi bu dee jëf la na ngeen jëf-jëf joo xamante ne mooy rafetal seeni nekkin waaye waay waaye bu dee demalante ak dikkalante la na ngeen demalante dikkalante na ngeen séq jàmm joo xamante ne day tax seen nekkin bi ci pénc bi mu doon nekkin ju mucc ayib na ngeen dëkkee dikkin bu rafet la ta'muruna ron ma'ruf da ngeen nekk fi rek di digle lu baax wala tanhawna anil munkar na ngeen nekk fi di tere lépp lu ñaaw lépp luy jaxase pénc bi di ko gàkkal di andi noonoo adaawata wal bagdaa noonoo ak mbañeel lépp lu koy andi lépp luy tax noonoo ak mbañeel di installe seen diggante ngalla waaye na ko sore bu dee wax la bu ko kenn wax bu dee jëf la bu ko kenn jëf bu dee action la bu ko kenn jëf bu dee idée bu ko kenn dottil ci askan ñaar ya yonent bi tegtal nii nee nangeen na nekkee loolu fii da ngeen nekk wallaahi yonent bi nee nag waat naa ci yàlla da ngeen nekk fi di diglu lu baax di tere lu bon walla yàlla mu dottil leen seen kaw yónnee leen mbugal bu jóge ko fa moom te su boobaa nag da ngeen nekk fi di ñaan yàlla yàlla teggil ñu lii yàlla may ñu lii yàlla wàccal ñu lii du leen faale du leen wuyu te du leen déglu moo tax mu ne ne nekk fi di diglu lu baax di tere bon wala awla yu yushikanna allahu an yab'asa aleykum iqaaban minhu bu dee nekku fi di diglu lu baax nekku leen fi di tere bon yonent bi nee na yàlla am na fulla ju toll ni mu wàccee leen tolof-tolof mbugal joo xamante ne ci moom yàlla lay bàyyee su di ko defee ngeen jallar beku di ko ñaan ngir mu teggil leen tolof-tolof ya ngay nekkee du leen wuyu du leen faale kon bokk na ci taaliqaat yi ba léegi képp ku yalla may la nga war a mën a digle ci lu baax defal képp ku yàlla may nga war a mën a tere lu bon defal bul toog seetaan ñay def lu bon seen lu bon ëpp doole jëfkatu lu baax ñi yow lépp loo xam ne lu baax la dee ko encourager nit ñi dee ko fësal del xëcc nit ñi ci lu baax del nit ñi njëriñu amalu saalix del wax nit ñi danger ba nekk ci munkar ak faxsha lu ñaaw ak lu bon danje ba ca nekk loraange ba ca nekk dee ko waxtaane amaana ku ko dégg mu mun a sore loole waaye la yonent bi digal nii nee na bu dee nekkewu leen ko nekku fi di digle lu baax di tere lu bon ah nee ragal naa yàlla yónni leen mbugal ba tukkee ko fam moom yàlla mu doon jafeñ-jafeñ ja ngeen di dund su ko defee ngeen di ko tàllal loxo di ko ñaante su ko defee du leen faale kon ñàkk digle lu baax ñàkk tere lu bon day tax a wàccee merum yàlla ah kañ day tax a wàccee merum yàlla kon ba tax na ngi ñaan yàlla buur bi tabaraka yal nañu yàlla boole ci ña nga xamante ne dañuy digle lu baax waaye di tere lépp loo xamante ne dafa wuuteek la yenentu bi jàngale mu doon lu ñaaw amin ya rabbal alamin ba léegi mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne ñu ngi ànd ak yéen ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 ñu di si fàttalante mbokk yi ko defee ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana mbokk yi yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañ ci tànn la ci gën a rafet waaye dañ ci jëfee la ci gën a jekk amin ya rabbal alamin yàlla mën na ko sañ na ko yan nañu ko yàlla defal amin ya rabbal alamin mbokk yi yan na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot su ko defee ñu géem góor-góorlu ci suñuy kémtalaay kàttan ñuy digle lu baax di digle amalu saalix ndax yàlla daf ñu ne ilayhi yasaadu kalima tayiba wal amalu saalihu yarfauhu fa moom yàlla fa jëf ju baax yàlla fa jëf ju di yéeg fa jëf ju baax baax di yëkkati ko di jëm waaye fa la kàddu bu rafet di dem waaw ilayhi fa moom yàlla yasaadu kallimu tayyib wax ju baax ba nit di wax sa gémmiñ day yëkkati dem fa yàlla waaye mu ne ñu wal amalu saalih jëf ju yiw de yarfauhu moo koy yëkkatil boppam moo koy andi fa moom yàlla ba tax na ñu bëgg leen dëktal ndénkaane ba yonent bi dénk mbokk soxna yi mbokk jigéen ñi seen xarit di seen soppee sallallahu alayhi wa suñu yaay yu baax ñi nang ñu may nopp ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 la seen sopp bi ki ngeen sopp kenn ku nekk ci yéen mébéb na am na cofeel ca yonent bi ne bu amee tuut tànk ba gane ci àddina bu dee jëmm góor la ko yàlla wërsëgal mu duppee ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax loolu da di cofeel ba nga xamante ne ñoom la ko yàlla jagleel ci yonent bi kon seen xarit seen soppe di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wasallam ma ne maa ngi leen di dënk nangeen rafetal jëmmale ko ci soxna yi waaw na rafetal maa ngi leen di dënk yiw ma leen di dénk na ngeen jàmmal soxna yi na ngeen jëflanteeg soxna yi nu mu gën a rafete na mu gën a jekkee na mu gën a neexee na mu gën a muccee ayib ma leen di dénk kenn bu mu mettital jigéen bala kenn ci woykat ya turam siw mu doon ci waa occidentaux balaa kooku di way ne bu benn jigéen jooy fekk ne yonent bi moo njëkk dénkaane ne na ngeen rafetal jëmale ko ci soxna yi ba tax na wasiyatu lin nisa ndénkaane bi de yonent bi moo ko jagleel jëmale ko ci mboolem soxna yi yan leen yàlla fay sallallahu alayhi wa sallam di seen xarit moone ne yaa ma'shara nisa yéen mbooleem soxna yi yaa ma'shara nisa yen mboolem jigéen ñi yaa ma'shara nisaa yéen mboolem yaay yi yéen mboolem sër yi yéen mboolem soxna yi yéen mboolem umpaañ yi na ngeen déglu la leen yonent jox kom dénkaane yonent bi ne leen gannaaw bu ma woote woote ju mel nii yaa ma'shara nisaa yéen mboolem jigéen ñi déglu leen yonent bi moo leen bëgg a jox dénkaane sallallahu alayhi wa sallam ne tasaddaqna tasaddaqna na ngeen saraxe na ngeen joxe sarax na ngeen làmb seeni poset yi di sàkkal seen bopp sarax na ngeen togg ñam yi joxe ko na ngeen baril la di yekkal nit ñi na ngeen baril la ngeen di joxe sarax na seen loxo ndey joor di sàq sarax na bari la ngeen di saraxe koo nekkal nga gis ne yére bu muy sol ab rafle moo ko bëgg ganesi te yow nga yore duubul batan boo dut mën a sol lépp waaye xoolal yow dut mën a jëfandikoo boo déggee ñu ne dikk sàngam ñu ngi leen di dajaleel yére ngir ñu yóbbul leen koddaay lañu war a jëfandikoo jëlal ci sa dubul bataan loo xamante ne soxlawuloo ko nga jëf si nga dugal ci sa loole te sa daq na na ngeen sàqal seen bopp sarax ay yonent bi ak lan mu ne waksir nal istigfaar na ngeen bëril di jéggalu fa yàlla na ngeen bëril la ngeen di jéggalu fa yàlla langeen di wax astaghfirullah moo tax mu ne wakthir na na ngeen baril al baat ba ñu naan astaghfirullah maa ngi jéggalu fa yàlla yal na ma yàlla jéggal yal ma yàlla sutural na ngeen baril la ngeen di sàkku fa yàlla ngir mu suturaal leen ma yonentu bi lu xew seen xarit bi ba léegi moo leen di jox ndénkaane bi mu ne leen na ngeen baril la di saraxe waaye na ngeen baril la ngeen di tuub di jéggalu di ñaan yàlla mu suturaal leen seeni rëcc-rëcc yi moo bi ana lu xew ba soxna yi ñu war a meloo ni seen sopp bi ne fa inni raaytukunna akthara ahlan naar gis naa keroog won nañ ma de ña gën ëpp ci safara yen la won ma ni daal ña yàlla àtte ñu gën ëpp ci safara jigéen ñi la jigéen yi daal laa gis ne ñoo gën ëpp safara kon na ngeen bëril li ngeen di saraxe amaana képp ku dëkkee ci loole haa du ñàkk yàlla seppi la ci ñu gën a ëpp ci safara soose amaana bu ngeen nekkee di bëril istigfaar yàlla mun na la seppi ci ñu ëpp ñooñu yonentu bi gis ci biir safara moo tax mu ne tasaddaq na na ngeen bëril la ngeen di sàqal seen bopp sarax wa aksirunna al istigfaar na ngeen bëril la ngeen di tudd astagfirullah na ngeen sàkku fa yàlla mu jéggal leen seen rëcc-rëcc waaye mu suturaal leen seeni bàkkaar ndax fa inni naka man yenentu bi ne ra'aytu kunna gis naa leen aksara ahli naar lu gën a bëri ci safara yéen la won nañ ma ne lu gën ëpp lu gën a bëri lu gën a sakkan ca safara jigéen ñi la kon yow mi dëkkee di saraxe amaana bu la dee fekkee ci ndénkaane bala yonent bi dénk yàlla mun na laa yërëm mu seppi la ci ña yonent bi gisuñu doon ñu ëpp ci safara si ba léegi yow jigéen ji nga xamante ne danga baril di wax astaghfirullah amaana bu la dee fekkee ci ndénkaane bala yenentu bi dénk yàlla mun na la rocci seppi la ci ña yenentu bi ne gis naa ñu ëpp ci biir safara moo tax mu ne ñu wasiyatun ab ndénkaane la lin saa jëmale ko ci soxna yi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yaa machara nisaa yéen boolem soxna yi yéen mboolem jigéen ñi ngal la waay maa ngi leen di dénk tasaddaqna na ngeen baril la ngeen di saraxe na ngeen baril la ngeen di sàq sarax wa aksirna al wa aksirna al istigfaar na ngeen bëri la ngeen di tuub di jéggalu fa yàlla di ñaan yàlla mu sutural leen fa inni naka man bi de ra'aytu kunna gis naa la gën a bëri ci safara yen la moo tax mu ne fa inni ra'aytu kunna akthara ahli naar gis naa leen yéen a ëpp safara yéen a bëri safara kon na ngeen saraxe na ngeen bëril istixfaar mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk si nag seen njaboot yal nañu yàlla may dégg ak dañoo yegg si fo ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ñu war a joxe xibaar ci nasaraan waxtaan bi jeexul la sa des nañ ko mottali incha allah ay e jëmmi jamono na ngi ñaan yàlla suñu boroom an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahuma ya rabbi ati nufuusanaa taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha amin ya rabbal alamin allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahuma a'immatana wa wulata umurina allahuma ya rabbi ihfada bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baarakallahu lii wa lakum fi alqur'aani alazim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikril hakim aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu